njabootu sax Seydil Hadji Malick gi yàlla defal leen jàmm yàlla boole leen def leen benn buum takke leen ni buumi kurus mel ci per yi noonu la ko affaire bi mel noonu la njabootu Seydil Hadji Malick yàlla na ko yàlla def noonu def ko ci njabootu Serigne Babacar Sy képp koo xamante ni bëgg nga lu neex Serigne Babacar Sy bëgg nga lu neex sax Seydil Hadji Malick ñu ngi lay ñaan looy waxati ci kër Alaaji Malick na nga ci wax lu baax looy waxati ci kër Alaaji Malick na nga ci wax loo xamante ni day gën a indi rapprochement ci diggante njabootu Alaaji Malick yi ndax benn bis sama yaay daf maa woo ma ñëw ma yëg ni sama yaay sëñ Baay mi li muy wax boobu dafa am ñaari doomam yoo xam dañoo xaw a juuyoo waaye ma yëg ni kii xoolam neexul lan moo tax xolam neexul mooy ñaari doomam yooyu juuyoo moo tax lekkatul naanatul kon kenn ku ci xam na ni jaboot li ko gën mooy ay bokkam ay doomam ànd doon benn loolu mooy saral xolu njaboot mënu ma gëm nga ni danga ngaa bëgg Serigne Babacar Sy da ngaa bëgg Alaaji Maalik ba pare ay jabootam bu dara duggee seen diggante sa xol di sedd man mënumaa gëm loolu nga wax ni da ngaa bëgg alaaji Malick wala da bëgg sëñ Babacar Si moo tax képp koo xamante ni njabootu alaaji Malick nga wala ngay njabootu sëriñ Babacar Si looy wax li ciy feeñ mooy nañu wane ni yow ku bëgg njabootu alaaji Malick nga ñu doon benn yow na nga wane ni ku bëgg njabootu sëñ Babacar Si nga doon ñu doon benn man sama xol day neex bi bu ma déggee surtout alaaji Malick bu wax ci surtout alaaji Malick lu neex fu mu nekk ci àddina dama koy jëlee indi ko ci internet bi ngir bégal xolu taalibe bi billaahi wallaahi na taalibi yëpp def noonu mooy ànd doon benn bokk ndey bokk baay jege sëriñ si waxtaan ak ñoom yàlla def ñu ànd bokk ndey bokk baay Sénégal jëm kanam loolu la réew mi di ñaan réew mi pour mu tàkk jëm ci kanam mooy ñun njabootu alaaji maal yi ñun julli ji nañuy ñaan suñu diggante yàlla def jàmm képp kuy wax na wax lu baax képp kuy wax nanga wax rapprochement ci kër alaaj Malick képp kuy ñaan na nga ñaan njabootu alaaj Malick gi yàlla def leen benn képp kuy ñaan na nga ñaan njabootu sëñ Babacar gi yàlla def leen benn taalibe bépp bu wax ni da ngaa bëgg alaaj Malick wala taalibe bu wax ni da ngaa bëgg sëriñ Babacar si man jàpp naa ni war ngaa mën a ñaan ci diggante euh, kër njabootu alaaji Malick gii wala njabootu suñu Babacar gi yàlla boole leen def leen benn ndax loolu mooy seral xoolu taalibe yi kon bokk yi nag loolu mooy li nga xamante ni moom lañ doon wax di ñaan yàlla yàlla yàlla defal jàmm ci barke yonent bi di kontaan ci ñëw le la Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci geste bi mu def dugg fi nga xamante ni mooy ci dëkk bi ñëw indiwul motaar indiwul dara waaye dugg tamit ci bi di nuyu xalif généraux yi def ko Touba def ko Tivaouane def tànki neen waaye tabarkàlla ziar ki nga xam mooy sëñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour jugee ko dugg ci kër alaaji Malick ziar ko ziar Seex Hadji Abdoul Aziz siyaar si alxaaj Mansour Ba